su ma xamoon sax nii la mbir mi di colorier du ma du ma ñëw nag wax dëgg yàlla ma xamoon dañ fi wax baara ngay maire baara ngay politicien baara ngay candidat su ma xamoon loolu du ma ñëw nag wax dëgg yàlla parce que loolu jotagul <laughs> loolu dana ñëw liggéey yëmbal la ñu dégg dañu liggéey rek. li tax ñu song collège imam Mouhamadou Sakhir defar ko dañoo dajale xaalis bi ñetti at pour mu mën a mat te yàlla xam na ni loolu bokkul woon ci jagle maire yi mooy ndaw yii nii yore ñun kenn santu leen ñuy tabax ay école état war a tabax ñun ñu saytu fonctionnement mais comme ni poste de police bi demee noonu la collège bi demee. à chaque fois bu ñu doon demandé ministère ñu ne waaw dégg nañ la danañ la programmé wala nangam ngay muñ rek ñu muñ ñetti at xam ne bu ñu amul taxawaay danañu gën a muñ ñu ne nag wolof am na lu mu wax ku ñaan ñàkk soo jëndee am nañ ko tabaxal suñu bopp ndax dama doon métti trop man ma juddoo yëmbal jàngi ba ñëw tey nekk maître musuma jàngi yëmbal ndax yëmbal dafa manqué woon ay école notamment lycée ak collège. yàlla dimbali ñu am cent deux millions daaw muy téeméeri millions ak ñaar def ko collège imam Mouhamadou Sadikh Gaye ñoo ko tabaxal suñu bopp li may wax ak yéen nii lancé waat appel boobu ndax dañ ciy dugalaat juróom-ñeent fukki millions quatre-vingt-dix millions teg juróom-ñeenti salle de classe ci kaw li mu nekk lycée d'excellence imam Mouhamadou Sadikh Gaye pour que xale yi ëllëg bu ñu amee entrée en ku ñu génn dem géej waaye wala caaro yi wala yëmbal noor wala Kër Masar yëmbal sud la ñuy des jàngee fi ba am seen